allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq mbokk yi dellu si leen ci seen émission alhidaaya min alkitab wa sunna seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ci seen rajo Safina FM ñu ngi nuyu borom kër gi di alxaaji Cerno Xamidu Ban eh, mu mel ni ñu ngi ñaanal suñu kilifa di kilifaam alxaaji Bachir Taal alxalifa yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla guddal fanam yal na ko fi yàlla bàyyi te suturaal ko li mu bëgg ci diine jeeg tariqa bi yal na ko ci yàlla jàppale mu mel ni mbokk yi ñu ngi woon ci xijaab yi ndax suñ maam aadam bi mu mooyee dafa def tawassul ci jëmm ju tedd ji di sayidna muhammad sallallahu alayhi wa yàlla ne ko noo xamee sama jaam boobu mu ne ko turam laa gis ci suufu arash mu dend sa tur te loo dendaleek sa tur fonk nga ko mu ne ko jëmm jooju lu ma bind jëmm a tax lu ma bind jëmm ma tax ndax mooy sama soppe te moom laa féeteel gis nga yonent bi dafa jege yàlla ci waxtu woowu moo tax ñu ne ahmad ak ahad la miim gi rek moo leen séparé ahmad ahad boo dindee miim gi rek muy ahadun ahad waaw la bilal doon wax ca njëlbeenu lislaamam ahadun yàlla rek laa gën gëm ahadun yonent bi rek laa kennal ci yonent gëm ko mu yóbbaale géew yonent yëpp ahadun ahad maanaam ahadun ahmad tax bilal ku teel a xam yàlla la dafa dugg ci diine rek am maarifa ahadun ahad moo tax moom bilal ni mu jegee yonent bi jéggi na dayoo waaw ba bañ koy denc ndox ma doon tuur ca bàmmeel ba ñu pare mu ne dootul noddaliti keneen ndax kam doon noddal suul nanu ko radiyallahu anhu moo tax yonent bi sallallahu alayhi fa ko yàlla denc denc fa njabootam moo tax ba léegi mënuñu xam al xaqiqa يونتي بي صلى الله عليه وسلم دفا ام بين الصحابي بوكلاج تمودي جابر وروي او وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور بي يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم القسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم مكي أم نيوي وخني يالا نجاكل بند يونتبي صلى الله عليه وسلم أم نصح نيوي لاج بن حديث مي ويرلني يالا يونتبي لنجاك بند xadis bi abdurazaq moo ko solo ci sanadam jële ci jaabir ibni abdillah radiallahu anhu yow mi laaj xadis bi wane ne yonent bi moom la yàlla njëkk a bind xadis baa ngi nii jaabir sayidna jaabir ibnu abdillah anhu dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent yàlla bi jote naa la sama ndey ak sama baay ndax arab ndeyam ak baayam dafa rëy ci moom moo tax mu ciy giñ ne ko maa ngi lay ñaan nga wax ma li yàlla njëkk bind lu jiitu muy bind yëf yi mu bind lan la yàlla njëkk bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna allaha taala xalaqa qabla al bi nuuri nabiyika min nuurihi Mhm. xalaqa qabla al ashyaa'i nuura min nuurihi mhm, mu ne ko xalaqa bind na inna allaha baatu inna tawkiit la day wax day wane ne li muy wax dëgg la te wér na mu ne inna allaha wér na ni ki yàlla taala yàlla mu kawe mi xalaqa bind na xablal ashyaa'i lu jiitu yëf yi lan la bind nuura nabiyika sa leeru yonent bii di wax ak yow min nuurihi mu bindee ko nag ci leeru boppam moo tax mag ñi di wax ne ba yàlla de yàlla wéet di wax ak boppam di wuy boppam kenn fekku ko fa kudul moom kot dara nekku fa lu dul yàlla yi kot moo xam nag moom na mu mel moo xam ndax dara melul ni moom ba mu demee ba bëgg a wettiliku dafa jël ci leeram na mu ko soobee bind ci leeru sayyiduna muhammad waxuñu la jëmm sayyiduna muhammad bi ñu miin bi doon dox ci kaw suuf déedéet leeru sayyiduna muhammad lu jara bàyyi xel la léeg nga jaawale nit ki doon dund ak yow ngeen di séy di tëdd ci lal di lekkandoo di naanandoo muy jóg di wax kooko boo ko jaawaleeg bi mu génnee àdduna ba yaram wi des fi yaram woowu nga xam ne màdd la des fi nga xam ne sax a koy mujjee mu xeeñ nga xam ne doo xajoog moom kër gi ba ñu jël ko suuli ko boo ko jaawaleeg li doon dund ci nit ki xama ko nit nit ëpp na li ngay làmb ci moom nit ëpp na loolu kon boo jàppee ne yonent bi nit la ndax yàlla def na ci moom màdd muy dund ci kaw suuf nga jàppe ko ko ko xamaguloo sayyiduna muhammad yonent bi waxul ne jëmm ci mais daf ne leer gi waaw mu ne ko inna allaha taala xalaqa qabla al ashyaai nuura nabiyika mu nuura min nuurihi moo tax ñu ne ba mu bindee leeru sayyiduna muhammad mooy seetu bi mu gisee boppam doonte gisoon na bopp boppam ndax dara tëwu ko mu seetu ca leeram googu nga xam ne ci moom la jóge gis taaram moom yàlla gis ne taar melu ni ni yàlla rafete jéggi na dayo mu bég ci taaram daldi tagg boppam ne laysa ka mislihi shay leneen lu tagg sa bopp xas nga sa bopp yàlla rekk a tagg boppam mu di tagg moo tax doomu aadama du tagg boppam ku taxaw ci mbooloo di tagg sa bopp soof ña ngay waxal moo tax yàlla njëkk a tagg boppam moo tax si di si di ko wax ci xutba ba ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ibtadaa bi xam xamdi nafsihi qabla an yaxmidahu xaamid yàlla tagg boppam bég ci rafetaayam wax ne dara melul ni moom ci taar ak màggaay ak rëy laysa ka mislihi shay daa joxoñ yonent bi ne ko lu may amal sa jëmma tax ma koy amal def naa la bis tey ngay sama soppe moo tax mooy albaau mooy tomb bismillahi arrahmani arrahim mooy njëlbeenu lépp lu yàlla bind moom sayidna muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ruux yi sell sax muy arwaaxul anbiyaa yi yëpp ci ruuxam la jóge moom la laaj Malik wax ne uyuunul arwaaxi min nuuril hudam bajasat fa innahu l jinsu laala maadinu sutumi ba tax na kon jëmm jooju yërmandey kese la ci yërmandeem la ñu baale aadam ci barkeem lanu ko baale ci tawasul bu aadam def ci moom ci leen ko baale ndax moom ci yàlla la jóge directement jóge googu mu jóge ci yàlla te yàlla di yërmande moo tax muy yërmande kese moo tax li yàlla di jéppi jéppi ibliis mosal na ko ci yërmandeem ndax ci la ko maye lii mu ko may waaw motax ñu ne laqad a'ta allahu iblisa shay'an لأنه حين عصاه لم يعذبه في الحين بل قال له إنك من المنتظرين إلى وقت يوم المعلوم يلا موصلنا إبليس أسلف تيير من دي نخبي إبليس موية يلا دموكو تساسي دفنكو danaa la muñal ba ba ñuy wal buftu ba ndax wax ci yawmil maalum dañ ne mooy yow ma yunfaxu fi suur ñu ne ban yërmande lay suñu boroom jëflanteeg iblis ñu ne ñaari rakaa yoo xam ne bi iblis nekkee cig njub te booba bindaguñu aadam dafa masa naafila ñaari rakaa yoo xam ne diiru naafila ba àgg na ci ñaari junni at yoo xam ne ñaari rakkaa rekk iblis taxaw di ko julli ci diiru ñaari junni at boroom xam-xam yi warante nanu ci am nañu ne ñeenti junni la am nañu wax ne juróom ñaari junni at la waaye ñu jël lim bu néew bi ndax moo gën a yenu maana boo gëmee bu néew bi mën nga gëm bu mag bi waaye boo gëmee bu mag bi rekk mën nga xeeb bu néew bi mbokk yi ñaari junniy at wax neen ne euh, bari na bi yonent bi génnee àdduna bi mu juddoo ak bi mu génnee àdduna saxaaba yi jaar fi ak li fi jaar ba bis tey matagul ñaari junni at kon li iblis jaamu yàlla ci ñaari rakkaam yooyu mëdd na li yonent bi dund ak i saxaabaam ba suñ jamonoy tey bi li fi jullit ñi jaamu yépp yeggaguñ ci jaamuk iblis googule ci yitteem ju réy waaye nag dafa yàqule ku farlu woon la ci jaamu yàlla looloo tax yàlla yëkkati ko wa rafanaahu makaanan aliya waaye loolu ko yàlla may ci ñaari rakkaa yooyu wan ko ne ko gërëm naa la ci sant naa la ci nangul naa la ko itam ñaari rakkaa yooyu danaa ci dëgg duma la rey duma la duma tey duma la rey tey danaa la bàyyi nag ngay dund ba keroog may wal buftu bi maa la ko fayee ci sa ñaari rakkaa yooyu danaa la ci jox yi pouvoir itam nga am doole ami sañ-sañ ci def lu la neex mu ne yàlla yi nga ma jox yépp mënoon naan la ko jaamoo wala ma waaye duma la ko jaamoo dama koy xeexe doomu aadama comme man yàqule naa te yaa ma yàqal te safara rekk laa jëm danaa fexe ba safara boobu bu ma fay dugg ànd ak njaboot gii nga xam ne seen baay moo ma xañ sama palaas bii ma amoon ci moo tax soo demee ci alquran suñ boroom subhanahu wa taala mu ngi xamal ni seytaane dafa wax yàlla ne ko doomu aadama day danaa ko dikke kanam dikke ko ndeyjoor dikke ko càmmañ dikke ko gannaaw qaala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an chamaa'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin iblis nee na yàlla sama boroom yaa ma sànq beewloo ma yaa ma yàq waaye lii nga ma defal nag danaa ko xeexe doomu adama danaa leen dikke su mala atiyannahum min bayni aydihim danaa leen dikkee seen kanam wa min xalfihim ak seen gannaaw wa an chamailihim wa an aymaanihim ak seen ndeyjoor wa an chamailihim ak seen càmmoñ mu ne itam wala tajidu aktharahum shakirin danaa fexe ba li nga leen defal ñi ëpp ci ñoom duñu ko gis duñu la sant amaana sax ñuy sant ñeneen ñoo xam ne nit mbindeef lañu comme ñoom bàyyi la jamono bi ñu ne fi yàlla jaar ak nit yépp tey yàlla day soxla nga xañ yàlla demal keneen kooku koy santul ba ci weeru koor wi li ci yàlla digle ci séentu bi mooy kenn ku ne na am yitte séentul sa bopp yow nga ne sama sëriñ lay déglu te amaana sax sëriñ ba néeg ba mu dëkk jógu fa ndax weer wi ñoru ko pour mu génn génn séentu ko wala mbooloo tëj na ko ba mënul séentu weer wi kon kay yow sëriñ bi déglu la ci weer wi moo gën di farata yow nga déglu sëriñ bi ñu jël lépp jox ko doomu aadama bàyyi yàlla mi bind yàlla ne na bind naa ñu jaamu keneen ku dul man ma joxe wërsëg ñu sant keneen ko dul man loolu lépp iblis la seytaane la liggéeyam la moo ko waxoon waaye mbokk yi bi iblis waxee ne danañu dikke ci wàllu yooyu dafa am ñaari wàllu yu mu fàtte muy kaw ak suuf mu am nag xikma bu ci nekk ñu ne fàtte na kaw lu tax yàllaa ko ko fàtteloo li rafail yadi inda duaa pour su fekkee doomu aadama iblis fàtt na koteem yépp yàlla ubbil na ko kaw ne ko soo jaaxlee iblis fàtte na kaw te ubbi naa ko tàllalal sa loxo boo ma ñaanee rek ma wallu la kon ndeke fàtte gi mu fàtte kaw yàlla ko ko fàtteloo loolu delluwaat ci yërmandeem moom yàlla ñu ne fàtte na suuf li sujuudi ndax bu iblis fattoon suuf kon sujootal yàlla dana jafe su fattoon kaw ñaan yàlla dana jafe waaye yàlla nag ubbil ñu buntu ñaan ak julli soo bëggee jege sa borom lu bàkkaar rëy rëy ba tax nga sori sa borom ndax amna bakkar yo xamne dana la sori sa borom lu tollok milliards kilomètres ben bakkar bo def rek bakkar bi sanni la lu tollok milliards kilomètres nga sori ko yalla nga xamne pour nga jege ko dana metti lol budé avion la sax mënu ko naw kon ban puissance mo waratah tax nga mëna gaaw jege sa borom ci sori gi nga ko sori mooy nga sëpp sa ji ci suuf su jootal ko boo ko defee rek julli avion la boo xam ne xel yi muy daw benn avion du ko daw te jëmul fenn nag lu dul ci yàlla bu ko defee soo jógee kàbbar jàpp ba sell kàbbar jàng faatiha ak saar ruko boo tegee sa jë ci suuf rek jege siwaat waat nga yàlla kon bu la bàkkaar sànnee ba nga sori yàlla su jootay tax nga jege yàlla yalla ñu ubbil buntu bobu nekon kon doomu adama du jégué yalla mukk ndax shaytané dana dox digënté mak sujjoot té ku dul sujjoot do jégué yalla kon day jaaxal jaaxlé na ci ki nga xamné fexénen ba def ci bopam warul sujjootal yalla warul julli te mu japp né mom jullit la dana wax la ilaha illallah amna na sëriñ waaye nax nanu ko ba du teg jéem ci suuf ak ni teg jë ci suuf amee doole ci diggante jaam bi ak boroomam was jut waqtarib loolu la yàlla wax yonent bi wasjud sujootal waqtarib su ko defee nga jege ma kon sujjóot beeg jege yàlla dara doxul ci diggante bi yàlla fàttaloo na suuf pour jaam bi lu ko bàkkaar sorele sorele ak yàlla bu sujootee rek jege yàlla mu fàttale ko kaw lu jaam bi jaaxle jaaxle jaaxle lu ko musiba yi wër wër wër lu mu sonn sonn sonn sonn sonn bu demee ba ñàkk yaakaar ci lépp moo xam dafa nekk ci digg géej moo xam dafa nekk ci feebar boo xam ne yaakaaratuñ ca wér moo xam dafa nekk ci kaso te xamul fu muy jaar ba génn yooyu yépp yàlla ubbil na la buntu kaw ne la boo tàllalee sa loxo Yakar ma ñaan ma te wóolu ma danaa la fa fekk ak sama ndimbal tabarakallahu kon mbokk yi iblis li muy nekk nekk noon yàlla mu ñuy jàppale ci xare bi nga xam ne ñu ngi koy xare ak moom muy xare boo xam ne abadiyatun sarmadiya la xare bu dul jeex ba mukk feek ñu ngi dund ci kaw suuf ñu ngi xare ak iblis waaw ñu ngi xare ak iblis mu mel ni suñ boroom subhanahu wa taala yërmandeem googu ci la bind yonent bi sallallahu alayhi moo tax bu ñu delluwaatee fa ñu tegoon suñu baaraam ci xilaas ci xijaab yi nga xam ne dugaloon na ci sang bi ñu ngi yemoon ci xijaab boobu ñuy tuddee xijaabu yërmande yonent bi def na fa juróom-ñeenti junniy at mu ngi doon sikar subhaana ñu ne boo bëggee am yërmande del zikar tur woowule mu ñëw ci assaada zikar na ko zikar na fa subhaana man huwa daa'imu laa yazaal subhaana man daa'imu laa yazaal def na fa juróom-ñetti junni at xijaab boobu moo di xijaabu saada soo bëggee am texe texe doo dugg safara waaw soo bëggee am bonheur ci sa àdduna nee na del zikar lii juróom ñetti junni yoon te mooy subhaana man huwa daimu laa yadaal kiiraay bii ñuy tuddee alkaraama gannaaw saada fa la dem muy muy taraanga def na fa juróom ñaari junni at subhaana alalimi alxakim la fa doon zikkar subhaana alalimi alxakim moom la fa doon zikkar moo tax boo bëggee taraanga dee ko zikkar waaye juróom ñetti junni juróom ñaari junni nga koy zikkar bu mu ci jógee mu dem ci manzila bi firi daraja def na fa juróom benn junni at mu ngi doon doon zikar subhaana dil mulkil azim subhaana dil mulkil azim subhaana dil moom la fa doon zikar mu tax ñu ne su fekkee danga nga bëgg daraja boo dee zikar loolu mën nga ko am ba mu fa jógee mu dem ci kiiraay bu ñuy wax alhidaaya def na fa juróomi junni at waaw bi de mooy turu émission bi alhidaaya min alkitaabi wa sunna alhidaaya yonent bi def na fa juróomi junni at ci xijaab boobu mu ngi fa doon zikaar subhaana rabbil arshil azim subhaana rabbil arshil azim moo tax boo bëggee jub njubte la ndax ku jubadi nga waaw loo ne banaa ko delluwaat ca eh, boo bëggee jub del zikar subhaana rabbil arshil azim bu mu ci jógee dem na ci kiiraayu nubuwa def na fa juróom def na fa ñeenti junni at mu ngi doon zikar rek subhaanallahi alazim subhaanallahi alazim moom itam su fekkente ne yàlla dogal na ah nga bëgg yonent yilif la sopp la del zikar subhaanallahi alazim ba mu ci jógee mu dem ci ar rifaa moom ñetti junni at la fa def mu fa doon zikar subhaanal malikil quddus bu fekkee danga nga bëgg a yëkkatiku moo xam danga nekk ci barab bëgg ci bëgg a amaat barab bu gën a kawe tabaarakallaahu ah del zikar subhaanal malikil quddus nga koy zikar ñetti junni yoon danga nga am tabaarakallaahu barab bu gën a kawe bi nga nekk ci mbaaxu yàlla ba ca topp moo di ab moom itam def na fa eh, ñaari junni at mu ngi doon zikar rekk subhaana alqadimi al adali subhaana alqadimi al adali subhaana alqadimi al adali zikar na ko junni at ñaari junni at subhaana alqadimi al adali ñaari junni at ñu ne su fekkee topp yàlla daf la jafe soo ko dee zikar yàlla dana nooyal sa xol ba lu mu wax danga ko topp lu mu tere danga ko bàyyi bu mu ci jógee mu dem ci kiiraay bu ñuy wax ashafaa moom junni at la fa def mu ngi doon zikkar subuuxun qudduusun rabbul malaa'ikati war ruux subuuxun qudduusun rabbul malaa'ikati war ruux moom la fa doon zikkar zikkar na ko junni at moo tax ñu ne soo bëggee ëllëg yàlla boole la ci jaam yi nga xam ne dañuy ràmm di dimbali ay nit di leen génnee safara di leen yóbbu àjjana nee na del faral di zikar di junni eh, junni yoon mooy subuuxun qudduusun rabbul malaikati wa ruux su fekkee calculer nga at yi nga xamante ni def na ko fa dafay daal di nekk soixante-dix-huit mille ans maanaam juróom-ñaar fukki junni at ak juróom-ñett kon yonent bi sallallahu alayhi xaqiqa bii mu nekkee woon nga xam ne mooy alxaqiqa al kenn mënuta xam la ko fa yàlla dencal te lu wëli yu foor foor akub yonent yiir neen la ca loola sa xel yeggu fa ndax mu ngi ci wara a tawril xijaa danga koy gëm rekk xam ne du moroomu kenn kenn xamul ay mbiram ku dul yàlla mi ko mbind moo tax li ko yàlla defal moo di rekk yónni naa la ngay yërmandey kese waaw yónni naa la ngay yërmandey kese moo tax ci yërmandeem la ñu amee ramadaan weeru koor ci yërmandeem lañ ci amee guddi gu mag mu di laylatul xadri waaw bu ñu neexee sax ñu ne ñun tijaan yi ci yërmandeem la ñu amee salaatul fatih ci yërmandeem sax la ñu amee assaba al mathani mu di fatihatul kitab ndax ku ne xam na ne fatiha juróom-ñaari aaya la aaya bu ci nekk day tëj buntu safara aaya bu ci nekk day tëj buntu safara ah nga janggu ko julli suba jang ko tisbar jang ko takusan jang ko timis jang ko ge kon fu julli di jaar ba duggu safara motax iblis ak limuy bon bon yeb dafa xey bis rek dal di décourager ne mom dal gis na ne xeexam ak doomu adama amatul njariñ ndax yàgg-yàgg doomu aadamaa koy gañe ndax yàlla dafa farak moom mu daldi woote benn congrès bu rëy ca medinatul euh, ca Makka la woote congrès ba bi mu wootee congrès bi daanaka junuudam yi ak jaysham bi ñëpp wuy ko mu daal nag mer lu mu wax def ne nanu tekki suñu gàllaaj tekki suñuy arme ndax doomu aadama yàlla du ko dugal safara surtout jullit ndax euh, yàlla nee na su fekkente ne ñoom jullit ñi def nañu bàkkaar lu bàkkaar ba rëy rëy bu ñu ko jéggaloo mu jéggal leen ko te nee na leen bu naagu ci sama yërmande ndax bàkkaar yépp lay jéggale yemu ca mu newaat ne ku ci def lu baax ci yenn fukk laa koy fay bu dee benn su dee ne benn bàkkaar la def benn bàkkaar rekk laay bind te balaa ma ko bind danaa ko muñal juróom benni waxtu su tuubee ma baal ko bu tuubul ma bind ko te bu jéggaloo ma baal ko ko te am na ci bàkkaar yoo xam ne daañu ko dajale ba mu bari ma faf sax bàkkaar yooyu ma def koy tiyaa ba fay ko nit ki iblis ne waaw kon benn benn boo xam ne léeg-léeg sax mu soppeeku doon tiyaaba benn benn nat yoo xam ne bala ñu ko bind daañu xaar nit ki juróom benn waxtu te bu ñu ko bindee bu jéggaloo ñu jéggal ko ko te jullit bi am na programme mu jaamu yàlla yoo xam ne benn bu ci nekk lañ ko ciy bindal ci tiyaaba kenn xamul na mu tollu kon nag nekk fi di xeex ak jullit ñi perte temps la waaye congrès boobu jaaxle rekk a taxoon Seydina jaaxle rek a taxoon ibliis woote ko waaye njabootam googu kenn ku ne wax nga gàntal nañu bari waaye am na ci njabootam ku ñuy wax alwaswaasul xannaas alwaswaasul xannaas kooku moo jóg ne ko yaa sayyidana yow suñu sang yaa mawlaana yow suñu kilifa yaa qaidana yow suñu gidd man dey sa njaboot la waaye dama bëgg nga fal ma te soo ma falee danaa la liggéeyal ndax yëg naa ne lii di doomu aadama am na foo mën a jaar ba bunt bi leen yàlla ubbil pour ñu mucc duñu gis bunt ba iblis na ko fan la mu ne ko fexe ba ñu bëgg àdduna génne yàlla ci seen xol fexe ba ñu ñeme bàkkaar te tàyyeel ci tuub ko ne ko ah, loolu de yoon la fexe ba nga bëgg àdduna ndax boo xasee bëgg àdduna léegi yow daanaka musiba yep a ci sa kanam ndax ki bëgg aduna aduna dana ko jaral mu dog mbokam te ku dog mbokk yalla dog la aduna dana ko jaral mu fecc wëllëre te ku fecc wëllëre yalla soxlawul sa diine aduna dana ko jaral mu fen aduna dana ko jaral xetu ñawte fi yep mu def ko ngir am aduna. mbokk yi bari na ko dugg ci franc-maçonnerie wut aduna tax bari na jigen ju dugg ci jaay sa bop wut aduna tax bari na ko dugg ci drogue wut aduna tax kon aduna bu al khannas fexé ba duggal ko ci sa xol di jax ci xal so rombe keur gu rafet mu fexel ba am ko mbula auto bu rafet rombe mu fexel ba nga am ko bu jigen ju rafet rombe fexel ba nga am ko soo nekkeek sa moroom yàlla ubbi ko ci wërsëg mu ne ah fexeel ba li mu am nga am ko danga dem ba sa dund yépp ci ay mébét rek lay tege lu ne danaa ko am lu ne danaa ko am nga mujj bokk ci ñu yàlla di wax ni alhaakumu takaathur xatta zurtumul maqabir yéen a ngi ëppalante rek ba xëy dee dab leen bokk yi alwaswaas alxannaas moo wax loolu kilifaam di iblis ne ko bayil ma nek poson ci sen xol di len beuglo aduna di len jax-jaxal di leen lo di yakar lo te ay fan rek la len yalla jox bis bu ne ñu ne am fan ya di dem dañu am bu bis sangam rendez-vous yi di ñew rendez-vous sur rendez-vous ndeke rendez-vous yoy yep mu ngi wañi say ko su danaa fexe ba ñu ñemee bàkkaar te duñu ko tuub danaa fexe ba ñu sàgganti xeeb bàkkaar xeeb bàkkaar yàlla boroom yërmande la yàlla ñëpp lay baal koo gis mu nar a dugg safara loolu lay wax yàlla boroom yërmande la yàlla ñëpp lay baal suñ mag ñu baax ñii ah yàlla du lakk kenn moytul ma ki koy wax kooku alwaswaas alxannaas moo ànd ak moom ñi ragal yàlla te gëm ko bu ñu toogee ci nendu toj ndax baynal xawfi war rajaa ci la ñu toog baynal xawfi dañu ragal seytaane ak i pexeem ak i ndëgg sërëxam yaakaar yàlla itam ñu boole yaakaar bi ak ragal bi su ko defee ci lañuy amee équilibre kon nag al waswasil xannaas loolu la wax seytaane seytaane ne ko d'accord kon danaa takkaat sama ceinture danaa armé waat danaa jógaat waaw te nag foo ko fekk moom seytaane comme ni mu rombee woon yonent bi ci xurwa yonent bi ne am na yitte bu muy doxi ndax boroom yitte la am na lu muy yàqi mhm. moo tax soo gisee suñ sëriñ su baax si wutal ñu programme mu jaamu yàlla mooy at tarbiyatu bil himmati wal xaal waaw di liggéey di ca tedd te du tardeel sa jaamu yàlla mhm. te fexe ba suba gi nga def téeméeri listixfaar téeméeri salaatul faatihi téeméeri laa ilaha illallah te balaa koo def fekk na julli nga sa julli farata ba noppi wala léeg-léeg nga yeewu ci guddi def say nawaafil def sa werd jiital ko yooyu yëpp pour mën a mucc ci alwaswaas alxannaas ndax ki nga xam ne bari na lu muy jéggalu yàlla luy bakkaaram di bari bari bari yonent bi nee na déjjërluwul ci bakkaar ku bari looy jéggulu yàlla déjjërluwuloo ci bakkaar kon alwaswaas alxannaas moo lay tàyyelloo ci jéggulu yàlla te mbokk yi jéggulu yàlla maqaama la jullit ñi de amoon nañu garanti ci bi yonent bi di dund ci ne yàlla du leen alag mukk feeg yonent baa ngi seen biir keroog bi ñu ko dencee moom yonent bi beneen garanti taxaw na ci jullit ñi mooy feek ñu ngi wax astaghfirullah yàlla du leen alal listigfaar googu nga xam ne ñu ngi koy xeeb moo joxaat seytaane yaakaar ci ne bu ñu ko sàgganee rek moom am na yaakaar ci ne dana gañe xare bi bokki seytaane noonu la moo tax lu mel ni tariqa ñëw pour ñu mën a mucc ci seytaane te gis ngeen am na lu fi seytaane bàyyi ci al ajwa al islamiya nga xam ne tey mbooleem euh, monde islamique ñu ngi dund loolu ci diggante chia ak sunnit xeex bu dul jeex mbañante noonante bu dul jeex te ngi gis suñu mag ñi liñ ci liggéey moo di ne bul far fenn te boo jàngee seen histoire ba noppi téyel sa làmmiñ te maandu ndax loo xam ne yàlla attelewoo du ko atteloo kenn moo koy attel boppam jarul guddal sa jarul wax ba yàqu waaw ñu jege yonent bi seytaane dox seen diggante liggéey lim ci liggéey ba laa ilaha illa allah tëral laa ilaha illa allah di ko rey te bu ko dee rey ci mer la koy reye ku ne xam ne ne la xew kër yonent bi metti na ni mu leen yare woon ci bëggante soppante ba alquran wax ko هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يعلن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود yàlla ne dalika mathaluhum fi tawraati wa mathaluhum fi linjil su ko defee noonu ñu meloon ci keppaaru yonent bi bëggante ci seen biir di gaynde ci noon yi soppante yërëmante di dimbalante seytaane fexe na ba dugg seen diggante ba ñu mujj bañante di reyante ñu waroon ko mën a fàtte gis bu ne moom seytaane mu ngeek mbooloom ak armeem dugg ci suñu biir mel ni ci ñun lañu bokk di ñu yàqal fexe ba chia bi du bëgg sunnit bi sunnit bi du bëgg chia bi ñu dem cee dema dema dema dem ba mag ñi nga xamante ni yàlla may na leen ñu bokk ci kër yonent bi sallallahu te bëgg a defar tax leen a jóg ñoom ñu jóg nag bàyyee leen nag àdduna bi ak pal gi ak ndomba tànk li daa di nag féetewoo nag jaamu yàlla jox ko seen bopp waaw moom la imam shafii wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة wattaxasu saaliha al aamali fiha sufuna ñooñu ñu fi indi tariqa yi xëy rekk daldi jublu ci yàlla lépp luy àddunañu ñu génne ko ci seen xol ndax ragal rekk seytaane bu mag bii di alwaswaas alxannaas nekk fa di jaamu yàlla di jaamu góorgóorlu ba xëy yonent bi naw leen ci loolu jox leen i secret ñu toog fa di tarbiye nit ñi ba ubbi seen tariqa ñooñu ñu fi indi tasawuf tasawuf boobu nag laalul ci chia laalul ci sunnit mooy lan mooy defar xolu jullit bi ba sañatu la bañ moroomu jullitam fexe ba feebar yi nga xam ne seytaane dugaloon na ko ci xolu jullit ñi ñoom ñu nekk docteuru baatin yi koy opéré di ko dindi di ko dindi ci tarbiya di ko dindi ci ay azkar di ko dindi ci ñaan ba nga xëy tabaarakallaahu sopp ñëpp bëgg ñépp moo tax boo demee ci mutasawif bi dafay bëgg Seydina Ali ak lépp lu yonent bi meññ dafay bëgg mboolem saxaaba yi dafay bëgg aboubacrin siddiq dafay bëgg sayidna omar dafay bëgg sayidna osmaan dafay bëgg na ali day bëgg sax muawiya lu tax ndax ab jullit sañu ta bañ mbokk jullitam léegi nag lislaam bi gis ngeen ko tas nanu iraq te looloo tax ñu tas ko tas nanu yaman te looloo tax ñu tas ko tas nañu siri te looloo tax ñu tas ko léegi nag benn yaakaar rekk la ñu am muy tasawuf soufisme bi moo téye lislaam ndax moom duggul ci parpar parparloo yooyu ndax moom boo demee xormal nañ ñëpp bëgg nañ ñëpp waaye boo demee ci chia am na ñu ñu tuddee ar li ñuy wax ci deru seydna abou bakar rafetul li ñuy wax ci deru Sidna Ousmane rafetul liñ koy li ñuy wax ci Sidna Omar rafetul li ñuy wax ci suñu yaay Aïcha rafetul te loolu lépp Iblis a ko dugal ci suñu biir di ñu jaxase ba looloo waral tax nga gis tey Arabie Saoudia jaaxle ñëw senegal di fi wut si wàllu ay soldaar yu dem Yaman yow sénégalais bi boo dee dem itam na jàpp ne ñaari dëkk yi nga xamante ni tey jii ñoo jote ñaari dëkk yépp njabootu yonent bi lanu ndax yaman fa la yonent bi yabaloon yebaloon Seydina Muaz nu Jabal te gis neen conseil yam ko doon jox ak na mu fonke woon Muaz ndax moo doon rëdiifam danaan war mbaam teg ko ci ginnaaw daan na wax al iman yamani gëm yàlla daal bu doon ne am na garab ma ne kon reen yaa nga yaman ndax waa yaman ni ñu bëggee woon yonent bi ak niñ ko fonke wax ne ne sax cosaanu nit ñu ñuul yi yaman la ndax ñoo jur soudan soudanais yi foofu la ñu jóge ñooñu itam bëgg yonent bi tabaarakallaahu léeg sax nga dégg ñu ne kii màbb kaaba ga foofu la jóge kooku abraha la abraha la te loolu yàgg na ndax bu dee loolu la rek ñi génnee yonent bi waa màkka ñi ko lor itam waa màkk lanu kon mbir mi nanu fexe ba e, nisaa yi am suñu diggante bi xëccoo bee coow li ñu fexe ba génnee ko ci xol yi te loolu tasawuf rek moom moo ko mën te mooy li ñu mag ñi tëralal mooy tarixa yi fi nekk kon tabaarakallahu mbokk yi ñu tegandi foofu suñu baaraam di ñaan yàlla yal na yàlla dimbali diineem ji di ñaan yàlla yal yàlla def jàmm ci réew jullit ñëpp def ko sax ci àdduna bi ndar képp yàlla nañu yàlla defal sutura àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla làq fa yàq yeggul yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule ñu ngi nuyu nag suñu yaay ju baax soxna Fadima Tall di doom ci Thierno Mountaga Tall yàlla na yàlla yokk leeram ñu ngi koy nuyu di ko sant tabaarakallaahu e ñu ngi nuyu itam tabaarakallaahu mbooleem auditeur yi nga xamante ni tabaarakallaahu ay soppe ak fu ñu mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di nuyu nag sama jigéen ju baax ju tudd Fatimatu Diop waaw soxna Fatimatu Diop nekk ca Amérique ñu ngi koy nuyu di ko sant tabaarakallaahu euh, mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen doon defal seen waxtaan wi tabaarakallaahu ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullah